Sénégal su maa ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg ñun tabarkàlla macha allah di am mbégte lool nag ak bànneex di dellu si waat euh, fii nga xamante ni mooy Kër Mbayang ni ñu koy defee saa su ne euh, dafa am nag liñ naan ko for xare bu réer <laughs> maa ko for ji ba indi ko loqati ko ñëw indiwaat ko ci biir kër gi comme day daw rek topp dëkk bi tabarkàlla macha allah ndey Fatou Dia baax lañ koy wax. ma koy nuyu di ko dalal jàmm waaye di leen nuyu di wax ne rek way leen di aimer tey partager li nga xamante ni mooy suñu vidéo rawatina bu tey bii nga xamante ni moom la ñu nar a waxtaane tey ndax preuve à l'appui la kenn du moom ci mim réew <laughs> da nga yor jàngoro topp ma ci biir émission bi ndey maa ngi lay nuyu di la ziar. <laughs> Adja maa lay fay bu baax a baax a baax euh, di la jox sa wàccuwaay bu baax. Mm-hmm. Euh, di nuyu mbokk suñu gaal yi bu baax a baax naan la namoon naa la. <laughs> yëg nga ni maa raw ah maa ngi fi de pourtant maa ci dëkk bi maa ngi ci dëkk bi. nday gars yi nekk bitim réew nee nañ ma toj nga fa de nga ne man maa ngi ci dëkk bi. <laughs> waa Adja bon xam nga moom foofu tamit bu ñu fa demee rek bon ne lañ fay def te duñ fa yàgg mais bon ñu bari duñu mën a ñëw des fois nag da ciy baax ñu leen dem di leen nemmeeku. Hmm. mais yi nga fa indi yéeme na de. non non Adja ça rek sant rek. <laughs> waaye may def waaye. <laughs> Eh, xam naa ni eh, mm-hmm. buñ demee ba ci biir bari na ci loo xamante ni sonal na eh, tubaab ya foofa mm-hmm. sénégal yi jëfandikoo nañu ko mm-hmm. gis tan te donte nag perdoon nañ espoir ci seen dund te yàlla yor bakkan waaye nag yaa ngeeg ay bagages yoo xamante ni tabarkàlla macha allah dinañ ci dugg nday ci wàllu seet foo ci toll nday gars yi nee nañ nday am na fit de loolu da lañ ma wax <laughs> day jékki-jékki rek génn fuddu ne leen suba nangam li day am ñu tekki seen bët. waa mais moom mi ngi fi ba léegi. waaw loolu moom mënu fee jog parce que comme li ñuy wax rek Adja. may suñu borom rek la. Mm. du lu ñu sàkk du lu luñ dara yàlla moo ko def si ñun te li ñuy wax rek nit ki da ngay bëgg toll foo xam ne nii tout le temps da ngay bëgg a mm-hmm. man man lu bëri dañ ma ko wax damay topp ci nit ñi ba fàtte man sama problème bopp wala fàtte man sa sama sama sama bopp. Mm-hmm. man li may wax mooy euh, c'est juste que dañuy bëgg temps rek di aider. Mm. bu ñu ci xawee dal wala ñu ci ñu ciy yéex di ci wax sax mooy sama yaay ci boppam moom moo bëggatul yooyu. Uh-huh. ba vidéo yi sax euh, li tax sax ñu def ko dafa am lu ko waral moo tax ñu def ko. Uh-huh. mais bu du woon loolu moom bon damay dem continuer sama métier. sama uh-huh. métier mooy lan li nga xam ne mooy télé. animatrice télé. mais nit koo gis da nga war a am métier. doo ko def leneen ma loolu laa mën a jàpp mm. parce que lii don la rek bu ñuy dimbalee jaam yi mm-hmm. bu ñuy don bu ñuy dimbalee jaam yi mm. te man Adja su ma sañoon ñëppay am jàmm mm-hmm. su ma sañoon ñëppay wér bugguma kenn ku nekk ci xat-xat bugguma kenn ku nekk ci problème bugguma kenn ku nekk ci benn jafe-jafe mm-hmm. loolu moo tax des fois damay toog ne bàyyi naa parce que nekk na loo xam ne man mënuma ci am alal ndax loo ci mënti am waroo waruma ko lekk d'accord man waruma ko lekk donc nag euh, su ma ciy def yenn vidéo yeeg yooyu bu dul sama garab yi may jaay dara nekkul loo xam ne war naa ko ci am te lu tax ma gën a defaat vidéo mooy euh, dama ànd ak sama doom mm-hmm. sama oto ñaari yoon mm-hmm. xale bi sax moo ma defa bi am ku ma woo am jàngoro bu nekkoon ci moom wàllu wàllu wàllu dënn buy metti mm-hmm. day fatt su amee liggéey bu bees rek dafay fatt yàlla bu yàlla boole ma moom loolu saafara ma ànd ak sama doom mu am ay yu mu doom jënde Uh-huh. teg mi ngi xëy sama ne ko man de tey sama budget dafa xaw seere li nga bëgg du ma ko mën a jëndal uh-huh. far ci yoon bi kooku mel ni yàlla da ko yebal kooku woo ma uh-huh. yónnee ma xaalis ne ma ndey far ma de may naa la xaalis temps parce que dimbali nga ma ndax euh, feebar bi nga xam ne jaar naa ci maamun yu bëri wala jaar naa ci sëriñ yu bëri ñu lekk sama xaalis mosuma ci am li nga xam ne mooy tan bii ma ci am ba maa ngi reprendre liggéey ba am naa liggéey bu baax sama premier salaire dama ne xaaral ma xaaj ko bokk ko ak yow doom bi kii la kii di wax ak yow nii sax bay jooy ci téléphone bi. Mm. te keroog déggoon naa koo xam tamit doomam du doon crise. Mm. mun la sama doom ñaata at mi ngi crise. Mm. yow ba nga ko joxee garab boobu ba tey criseul. mun ma yaay lu baax lii ngay def pourquoi nga bëgg ko arrêté. xale moo wax loolu de mun ma pourquoi nga bëgg ko arrêté. après loolu nag nga commencé di réfléchir ñi lay woo ci téléphone yi di la wax di la ñaanal. voilà loolu nag des fois da nga naan xaaral ma jógaat. xuusaat dimbaliwaat nit ñi parce que man dama ne man benn benn benn yoon laa am wala benn vocation da dans la vie moom laa am mm. mooy dimbali jaam yi mm. même que émission télé su may dem damay wax ci li nga xam ne dafay am njëriñ ci kër yi pour kër yi ñëpp nekk ci jàmm mm, voilà donc nag man pour man benn jaam laa bu yàlla yebal pour mu mën a dimbali li nga xam ne mooy askan bi point barre d'accord euh, ba tey benn laaj boo xamante ni ma laaj la ko mm-hmm. métier mi dafa doon loo xamante ni suñu borom ko sol mm-hmm. mais xuusoo ci carrément fi ma ko teg. Mhm. nit dafa may woon ne ma dama woon Ndeye faatu pour mu seetal ma léeg dafay jafe pour mu jot ko dama woon Ndeye faatu pour jëflante ak moom léeg dafay jafe parce que dafay préférer nekk ci leneen que concentré wu doon sëriñ bu lal basangam toog. Hmm. lu waral choix boobu. moi je me sax man du ma du ma sëriñ parce que sa moo ma dérange un peu. mais yàlla moo la may. waaw yàlla moo ma may lu mayul say morom te say moroom ñu ngi bàkku. waa waaw loolu nag pour man. ñàkk gëm suñu borom la ñun ay taalibe lañu. d'accord Ndeye Fatou Diada baax boo ko dégg taalibe Cheikh pire la. donc boo nekkee taalibe Cheikh mu nekk sa deret yow tout le temps foo nekk rek da ngay suufee sa bopp. Mm. mais ku wéet xam nga ki la mën. Mm-hmm. loolu rek mooy wax waaw ku ne ku wéet rek xam nga ki la mën. Mm-hmm. man su may ñëwaat di ñëw nii di ci di ci ñëw des fois ma toog un an ne bàyyi naa. mais réew mii nii tey man bu ma décidé ñëppay xaar parce que mën naa toog di wax di ko wax ba pare man dama lay détaillé. mu leer nañ man Adja ma ñaata nit a may woo seet doo ma wax sa tur man maa fi njëkk taxaw ne danga may woo allo bul wax sa tur soxla ma sa tur soxla ma sa tur yee ban seetkat moo ko mës a di wax ci Sénégal man maa ko fi indi ku ko fi waxaat après man la laaju ma sa tur. dégg ku ko wax dangay joxe sa tur sa turu yaay. man doo ma jox dara man nee ma allo man danga ma naan allo ma dégg sa baat ñuy ñuy discuter ma dem man ma lay génnal ay tur di la wax li ne sa biir kër. loolu loolu mayu suñu boroom la. mais man defuma ko métier man déggu ma dama am sama métier man télé nga may gis may bég man ci télé laay bégee télé foo ma woo ma tourné la émission toog loolu laa xam ne te dama ciy nekk à l'aise mais métier bi nekkuma ci à l'aise dama cee ñàkk pexe loolu dafay firndeel ne mhm. ka nga nekk animatrice ka nga mhm. nekk bureaucrate mhm. ka nga nekk jaaykatu ndugg bi suñu borom bu la bëggee sol dara daf lay sol dara parce que c'est difficile que nit ñi gëm une animatrice boo xamante ni ci leneen la doon dox mais terewul am na lu mu làmboo ci suuf loolu war na mun a nekk. waaw loolu loolu moom loolu moom commencement bi comme comme sama cas par exemple. commencement bi c'était un peu difficile. mais nit ñi soo waxee waxaat waxaat waxaat mu am nit ñi dañuy nangu. dofuñu Ndeye Fatou amul xam-xam kenn du ko wax. déedéet. mais problème bi mooy quel est le problème ba des fois tey nga gis ko mu nekk ci tele bi di animé lu toog. tey nga xëyaat gis ko mu nekk parce que pour man loolu mooy àdduna nit dafa war a am métier. même que sëriñ yi di xëccoo sëriñ da nga war a xëy dem defi menuiserie. wala dem toog sa bureau. Mm-hmm. soo wàccee nga ñëw toog sa kër summee ko wala nga toog sa kër mën a dimbali nit ñi. Mm-hmm. parce que nit dafa am métier. d'accord man loolu loolu laa loolu laa ko jàppee man li may wax rek nee naa comme que loo xam ne ni aw ma ci waruma ci lekk kon foo ma uti li may jox sama njaboot fu ñu lekk. d'accord Ndeye. Mm-hmm. nga xëy benn suba woo ma téléphone. loolu bokk na ci li tax sax ma forcé la émission bi ne la par force da ngay ñëw wala ma dogoo ak yow. <laughs> nga woo ma téléphone ne ma dama la gént gis la biig génneel saraxu dugub ndax danga ma doon jox dugub nga ne ma génneel saraxu dugub nañ ma déglu bu baax li may wax ma ne la waaw dinaa ko génn nga ne ma parce que yàqu-yàqu bu ndaw mu ngi ñëw nga sewal ko noonu jeudi nga ma ko wax ma sàggane jeudi boobu vendredi ma xëy ñu boole sama portable ak sama doom sàcc leen vendredi bii passé doom ji moom ñëw na mais portable ba moom dem na xam naa di nga ma fay portable ndax danga ma ko waroon a leeral ak ndey lu tax boo ngay jékki-jékki man te loolu se bii mooy bi mujj. Mm-hmm. bari na loo may woone ma defal nangam ak nangam di nga gis nangam di nga gis nangam te da ngay yeewu rek sa xel dem ci man te noonu nga koy defee ñeneen la ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. ndey lan moo lay yee guddi ba di la xamal ci nit ci sa nit. waa loolu loolu loolu def may dal ci ñu bari. Mm. loolu day fekk en général. surtout su ma yëgoon su ma yëgoon teel a saraxe dugub. surtout portable ba dem na. <laughs> surtout bu ma amee cofeel ci nit. di mhm. ci ëpp. Mhm. Euh, am na ñoo xam ne tey jii maa ngi liggéey ak ñoom ñu doon ay nit yu baax. Mhm. ñi ngi bitim réew voilà tout ñoo xam ne yàlla boo na ma ak ñoom lépp rafet. lu bëri dañ ma koy wan ci ñoom ñaata nit laay woo par jour naa leen def leen lii eh, def leen la. parce que dañ ma leen di wan. te te te am na loo xam ne mën naa la ko décrire avant am na loo xam ne mënu ma la ko loolu dafa am dafa am solo am na loo xam ne nit ki mu la gisal mënu la ko wax tànk que woo sarax bi. doo ko réyal daal. waaw non du question rek yow ba ma la woowee dama insister pour nga génne ko ci bis bi ngeen ma am naa dugub dinaa ko génne. waaw loolu moo tax ngeen ma dinaa ko génne donc voilà. mi ngi noonu ba pare tëdd fàtte man yooyu laay def waaw sarax xam nga dafa am solo. sarax li muy fànk dafa bëri. dina dina dina dina dimbali nit lu baax te sarax sax nekk na xam ne sax day fanu nit day yokku wërsëg voilà mi ngi noonu donc man des fois damay saraxu nit man damay saraxu nit naan la dimbali ma ci jëmmi lii nga def sarax bi parce que xam naa ni dina am luy ñëw ci yow mm-hmm. wala lu bari loo xam ne nii waroon na la ko yàqal mm-hmm. te day doon loo xam ne daal vraiment si samay nit du ma bëgg loolu noonu vraiment mm-hmm. ci kaw preuve yooyu la man dañ ma gëm suñu gisee soxna Mbaye boo waxee dara dañ koy gëm parce que xam nañ ne ci ñàkk caaxaan mhm. loolu moom lu ma leer la lu ma dund ak yow loo xamante ne du benn mhm. bii da cee mujj ndax dañ ma ko wax tey ma tëdd nelaw sàggane ko suba ma gis li ma gis xam nga ni saraxe ñaari kilo dugub moo gën a yomb ci man portable bee dem ak wër sama doom suba ma ko di jël alhamdulilah doom bi feeñ xamante ni mhm. lamb nga xamante ni moo amoon le premier diggante Modou Lo ak booy Niang Tounkara du teew ñuy nataal may ma boobu li ci waxoon. salaam salaam les gars maa ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax ngeen ànd ak ki nga xam ne mooy Ndeye Fatou Dia Dabakh euh, naan namoon naa leen nag namoon naa leen trop euh, mi ngi noonu mais damay ñëw rek di wax ci làmb bi nga xam ne mooy Modou Lo ak Boy Niang làmb bi am suba la premier janvier maa ngi doog a yeewu xool leen sama kanam gi. mais li ma dégg ci réseaux sociaux yi sëriñ yi wala ñaankat yi wala ñenn ñi di jox faveur li nga xam ne mooy booy ñaa man gisuma loolu man man gisuma loolu ma damaa gis Modou Lo di daan booy ñaa daan bu ñaaw boo ma ne ngalañ tëdd ci digg géew gi man loolu laa gis te li wax toog leen seetaan suba yàggatu ma samay wax ku ko yàq di ko defaraat yéen ñi joxe génn jox ay verdict ci booy ñaa tey leen wax man maay wax de maay wax de Modou Lo day daan suba le premier janvier booy ñaar daan bu ñaaw ba mu ne ngalañ ci digg géew gi man maa ko wax su may wax ku ko yàq na di ko defaraat suba yàggatul nday faatu ja dabaax allahu akbar lu yéeme <laughs> macha allah fa tabarakallah foo tegoon Lo ak Boy Niang waa xam nga rek um, am na yenn ci yenn heure yi mm. dafa am loo xam ne rek buñ la ko waxee doo ci lam-lamee mm-hmm. voilà donc ma yeewu rek bon ñu wan ma ko ñu wan ma rek booy ñaa jaaxaan Modou loo tiim ko te lu avant loolu deux jours avant fan yëpp maa ngi dégg ñu naan booy ñaa booy ñaa booy ñaa bon après ma génn rek ne ñi wax booy ñaa day daan nañu nañu tey rek parce que bon seet moo demee noonu aussi ñi ngay xëyee gis dara mu am des fois ma nga gis dara mu bañ am voilà mi ngi noonu mais bon am na yenn heures yi moom su ma gisee dara daf may lenn lii day am par moo tax nga am fitu taxaw def ci vidéo sa sax booba yeewu rek. sëlmooguma ngay wax. daal di ñu koy dóor noonu. ci li nga gis waaw voilà ma ko doon bañ a fàtte wala ma jàpp leneen voilà. donc te boo fekkoon na gëj a dugal ay vidéo gëj def ay vidéo ndax. Euh, sama yaay comme ni ma koy waxee te dama ko fonk lu ma teree dama koy bàyyi. Mhm. voilà donc voilà loolu moo tax rek bon may gëj di def daal vraiment. te doom ju lax gërëmal ndeyam nga loolu foog ma cabaxal ko ci biir. Ah, macha allah loo xëy pour moom la. waaw vraiment vraiment loolu moom am na lu ñu xëy rek pour moom la. yàlla na yàgg ci sunu kanam amin allahumma amin te yàlla jox ñu kàttan bu ko teree. amin allahumma amin ndey. dafay prouver ne ndey des fois dafay liggéey ci làmb ji wala. non làmb moom benn benn benn nit daal laa ci mës a liggéeyal te voilà te kii tax ma ma liggéey ci kooku xam naa ko avant làmb. Mm. voilà parce que tamit xam nga Adja. Mm. mën naa gis dara. mais nit su ma demee ba di la liggéeyal. Mm. su ma la mënul garanti cent pour cent lii day am ma bàyyi. Mm. yàlla nag moo yor lépp. Mm. mais nit ki même que tey boo ma wooyee pour sa benn soxla. dinaa jël sama temps xool ndax mën naa ci dara wala mënuma ci dara. parce que am na loo xam ñu ma ko wanee rek mooy diw tegtal yi leen ciy jox. toppal lii nga defal ko lii defal ko lii boo ko defal lii ci temps de jour wala lii àllaa day am ndam. léegi man nag ku mel ni mbër ma ñëw encaissé sa xaalis te mënuma la garanti sa ndam ma bañ koo def moo ma gën a nit ki tamit dañuy xaw nekk ay nit tuuti wala ñu ragal yàlla mais mënuma jël xaalisu mbër lekk ko daan bi ñu dànk ba yëg ci kawam nan laay def lan laa koy wax xanaa dama koy waat delloowaat ko xaalisam ci yoon. d'accord moo tax na affaire yooyu dafa nekk ay mbir yoo xam ne damay faral di ci xaw a maanu daal et buñ ma ci buusee dëgg ma jéem ci li ma ci mën. war di ñu dimbali ci Coupe d'Afrique bi xanaa. ah mais suñu réew la. Hmm. suñu Coupe d'Afrique bi kon suñu réew la ni ñuy dem def rek la ñuy def xëy rek jàkkaarloo yéen ci ay sarax rek. d'accord ñu góorgóorlu rek incha allah. d'accord. Mhm. wax ji du tey rek ci Boy ñaa ak Modou yaa ngi fàttali ko bi ñu fi waxee ci xale bi nga xamante ni dañ ko sàccoon nga ne xale bi soriwul hmm. muy waaju siiw jooju doomam réeroon hmm. nga ne xale bi soriwul bi dëkkoon Pikine bi dëkkoon Pikine voilà hmm. mi ngi ci loxo yu baax mais ki ko jël sax amul doom <laughs> ñu xëy def gëstu ba xale ba daal di ci saa si xale ba daal di feeñ euh, jarul nga ciy ñëwaa ah. parce que les images sont libaas mayaat ma <laughs> eh, salaam salaam lay gars yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar ngeen di àndaat ak kan ki nga xam ne mooy Ndeye Fatou Diatta Baax te yaram bi dafa nege nege mais du tee de ñëw wax ci li nga xam ne loolu la ñu yàlla woon wala ci may suñu boroom rek euh, ñuy ñëw di wax ci kaawu euh, bébé bii di xam ne mooy ayda Diagne mu ñu jël ko depuis li nga xam ne mooy semaine passée mais ñëw nag di ñaan yaayam ñu partage maximum vidéo bi yaayam bu ci jotee tey ci bisu àjjuma. yaayam na sarax ci bisu àjjuma ndax tey la vendredi 22 euh, euh, juin vingt 2022 na saraxe tey set guro yu weex sept guro yu weex ak li nga xam ne mooy sept kaasu suukar day natt suukar bu mokk sept kaas mu takk ko ci sept mbuus yu bokkul mu saraxe ko ay taalibe yuy dem ay taalibe wala ay xale rek yuy dem na leen ko sarax ndax euh, xale bi mi ngi ci jàmm xale bi mi ngi dund ba tey jii may wax ak yéen ci vendredi 22 juin 2022 lu leer naññ laay wax euh, ci may rek suñu borom nag mi ngi dund ki ko téye nag mi ngi xool réseaux sociaux. soxna si dañ la koy ñaan delloo si xale bi yaa ngi xool réseaux sociaux yi delloo si xale bi ndax lu dul dëgg du yàgg boo ko indi ba ci bopp koñ bi sax nga sànni ko fa daw sax delloo si ko bu ko sàqal benn pexe. ki ko jël mooy li may wax rek mi ngi seetaan li nga xam ne mooy réseaux sociaux yeeg télé beeg yëpp mi nga ne ñi ngi seet xale bi dañ koy ñaan rek ngala na delloo doomu jàmbur ndax moom dafa am jafe-jafe pour am doom ak jafe-jafe wàllu njur donc euh, na delloo si doomu jàmm parce que loolu moom moom moo ko tax xale bi nag bébé Aïda soriwul bébé Aïda soriwul de <laughs> mi ci entourage soriwul soriwul lool de bu kenn jàpp ni mi ngi sori non soriwul lool nag euh, te bu yaayam defee saraxu set guro yu weex yi ak set taasu suukar incha allah jox ko ay xale yàlla mën na ko indiwaat xale bi ci ay loxo ba nii may wax ak yéen ci vendredi 22 juin 2022 xale bi mi ngi ci jàmm ndax ndaw si mi ko toppatoo parce que doom amul doom mi ngi ci ay jafe donc moo tax mu jël xale bi di ko toppatoo mais na ko delloosi bis bu ñu ko delloosee incha allah nday faatu ja da baax ci may suñu borom rek dinaa ko jàppale ba yàlla may ko njaboot mais nag gaawantu delloo xale bi ndax doom dafa sax ci yaay dafa métti dafa métti ngir yàlla delloosil bébé Aïda lii yéeme na de. Adja daa mel maa waajal di ma xaar tey. non nee naa la preuve à l'appui lay dund ak bala maa ñëw ci xeetu jàngoro yi. <laughs> Uh-huh. voilà. waaw voilà la même chose voilà bon yii moom dafa nekk loo xam dama koy seet boobaa. d'accord bu fekkee da nga xale bi dafa réer. ndax boobu réseaux sociaux ñëpp nga naan xale bi xale bi ak photo bi xale bi mignon. Mm-hmm. léegi bon da boo jëlee turu xale bi dafa am noo koy seetee. Mm-hmm. boo ko seetee dañ lay woon même que ci image sax fi nga koy seetee mën ne la fi mu ne ci image. Mm-hmm. ma am na nu may xool yoo xam damay gis image yi mu mel ni film bu ma tegal daa ma koy seetaan. d'accord boobaa da xam nga seet nga xam. Hmm. te bu ma ko seetee muy muy jeudi jeudi bi ma xëy def ci vidéo bii nii ngeen ngeen seetaan. Hmm. ne yaay ji na def sarax yi kon li ma ci wax. le di soir la xale bi feeñ. le vendredi soir la xale bi feeñ. boobu sax maa ngi koy fàttaliku maa ngi nekk sama kër yaay. Hmm. Euh, fekk ba ma ba ma waxee vidéo bi dafa am ñu ma doon ne kii ku ko jàpp xale bi feeñ. ndax xam na fi xale bi nekk. ma defaat beneen ne li ma yàlla wan rek laa wax si may suñu borom rek laa wax xaw ma fa xale bi nekk voilà ma tëdd sama carrière affaire bi pression bëri woon sama kaw ndax ñëpp a may accusé ci xale bi xale bi ñu jéeg ji am ku ma bind message dama man tàntey bi laa sarax ba ñu ko waxee démb man def naa ko xale bi feeñ na léegi rek maa ngi tëdd sama néegu yaay boobu affaire bi xaw ma jàpp ma tëb fekk sama yaay saal bi tëb fecc ne ko yaay sa doom du nit ma pare sax dama mujjee tuubaat parce que mm. suñu borom rek la ndax wax mu am wala wax sax mu àgg loolu rek suñu borom rek la la rek la neex donc ma ci sant rek suñu borom bu baax a baax a baax a baax a baax da après loolu julli ñaari ràq gërëm suñu borom ndax ndam la ndam rek la ma may ndax bu leneen moo am gisuñu xale bi wala ki ko juróon yeneen ak yeneen am ci mu am ay doom ak yooyu dañ naan bon kii li mu wax amul voilà yàlla suturaal na ma ba li ma wax mu am di ci santaat rek euh, suñu borom tabarkàlla macha allah waaye leneen loo xamante nii nit ñi tegaat nañ ci seen bët. ci ay témoignages yaakaar naa ni duma yem ci wàllu seet bi rek dinañ waxtaane rab ci kanam mais am na beneen témoignage boo xamante ni bëggoon naa ñu jël ko ci koo xamante ni yaayam dafa am lu mu dundoon ñu dem xooli ji ko te ñëw. man damay témoigner si si garab bi nga xam ne dafa nekk garabu rab wala garabu seytaane ndax sama yaay ji ma jur man am naa sama néeg moom am na néegam mais dafa feebaroon toll benn état boo xam ne. may seetaan suñu gaal 24 ma gis numéro da baax ma daal di koy woom expliqué ko ba ma fa demee mu jox ma ay garab mu tetal ma nuñ koy defee ñu def ko sama yaay bu tëddaan guddi day yuuxu day day yuuxu di xeex ba bër set te buy wax mu moom voix wam di génn beneen voix mooy wax danga naan beneen nit mooy wax wala dafa am lu dugg si moom wala dara mais ba ko da joxee garab yi moom macha allah dana tëdd nelaw bu bër set du yuuxu du waxtu du def dara. loolu moom ku ko ci am moom maa ngi lay digal nga xool ci numéro yi ci suuf nga woo ko nga dem jëflanteen moom loolu moom man maa ko dund ci sama yaay ji mu jur wër na bu tëdd téye day nelaw bu bër set du yuuxu du def dara allahu akbar lu yéeme <laughs> macha allah fa tabarakallah nday ñu nga indi garab goo xamante ni ñi ko jël sant nañ seen borom bu baax mm-hmm. waaye am na ñoo xamante ni ñi nga bitim réew soit yaa leen fa fekk soit garab gi nga leen yóbbul mhm. te daanaka tubaab day jàkkaarloo yow ne la tu as mois pour vivre xawma mel mhm, mhm. ni ñoom ñooy yàlla nga ñëw défier loolu nga ne damay ànd ak sama borom waaye samay garab a ngi nii ñam ko xool garab gi ndey lan la nga décortiquer ñu ko parce que jaaxal na gars yi <laughs> waa garab bi mi ngi nii donc euh, c'est cent pour cent naturel d'accord man maa ko defar maa koy defar ak samay doom voilà ku nekk day nekk ñii di dëbb ñii di lay ñii di mixé voilà mu nekk loo xam ne daal lépp rek lu am ci Afrique la mm. néew ma Sénégal rek la am mm-hmm. nekk na loo xam ne dañ koy uti Guinée dañuy dem ay sous régions yu bëri dañ fay dem mm-hmm. bu nekk dëkk bu ne ak li mu am mm-hmm. dëkk bu ne ak li mu am voilà donc ñu defar ko danga koy jël poudre la da koy jël nga def ko tee infusion bu tàng bu tàng jë soo koy naan day tàng bay lakk nga xool euh, c'est cent pour cent naturel comme ni ma koy waxee rek euh, liñ ci bind sax mooy euh, remède miracle donc son action ralentit et bloque la croissance et la propagation des cellules cancérigènes dans le sang donc mu loo xam ne tey jii comme ni ñu koy waxee rek mooy boo koy naan ci saa si dafay stoppé cancer bi parce que cancer dafa nekk loo xam ne ay cellules yoo xam ne dafay tas ci deret bi dafa mën a tasaaroo. yàq day tasaaroo dugg ci lu mu warta dugg. Mm-hmm. voilà yi mm-hmm. dafa doon même genre chimio. chimio waaw voilà léegi boo ko naanee dafa nekk loo xam ne nii si saa si rek tas bi arrêté na ko commencé na di ko rey ci biir deret bi. di rey cellules yi voilà mu nekk loo xam ne boo ko comme boo naanee premier jour sa commencé nga sentir jàmm te yenn métit yi ngay am ci yi nga xam ne cancer bi moo la koy jox douleur yi métti yi nga xam ne da la ko ci sa da da koy réduire bu baax a a baax yow da ngay jógaat di dox si say activité tout temps que nga ne sa traitement. même bu la jàpp tànk yi wala jàpp mbagg mi wala jàpp loxo bi boo commencé benn sachet bi rek. boo commencé si waaw parce que day calmer douleur bi en lii dafa nekk garab boo xam day calmer waale douleur bi nekkaale antibiotique en même temps nekkaale garab boo xam ni euh, da da da lay dimbali ci force genre vitamine yoo xam ne dala koy joxaale mu lay dimbali. parce que amoon naa benn femme boo xam ne nii bon euh, mi ngi États-Unis mm. euh, dafa ñëwoon sax ñu wax ma problème am. Mm-hmm. ma may ko ko xam nga des fois dañ naan garabu olof dosage voilà. Mm-hmm. donc mi ngi noonu ñu bëri duñ ko wóolu mais fii ku wër. Mm-hmm. testé testé man Adja balaa may jaay benn garab. testé naa ko 6 mois wala 1 an. si ah. samay mbokk wala sama ñi ma xam faj leen ci ma tànk aw ma résultat. du ma jaay man Adja lu ma am résultat bu ko gënal. d'accord man su ma amul dërëm man naa am résultat man damay nit di woone ma faj nga ma tane naa yaa ma dimbali ci liggéey bi yaa ma dimbali ci garab kii rab bi yaa man loolu moo ma dundal damay tëb di fecc ka dal di zikk di def yu neex d'accord parce que loolu mooy li may dundal mais garab bi am na ku nekk États-Unis koo xam dama ko ko mayoon mu naan ko comme li ma la wax rek mais dañ ko kanam ne woon six mois six dañ ko ne six mois doo fa àgg biir bi di gonfler di metti mu amee mettit boo xam ne day tëdd di wocc suba ngoon Adja bu mu ko naanee nee na ba mu ko commencé naan amatuma méttitu biir mu ne ma hôpital dañ ma daan jàppoo léegi maa yóbbu sama bopp bu hôpital médecin dañ ma mujjee jékki ne lii yàlla rek moo ñu te ba mu dundee léegi presque léegi mu def deux la jël. waaw médecin ñoom ñoo jaaxle ñoom parce que ñu ko jàpp ni sax ni Afrique am na yenn ressources yi voilà. ñun dañuy jàpp ni rek euh, yàlla moo ñëw. ñoom dañ ko ne yàlla moom moo ñëw si sa cas. miracle lañ koy jàppee miracle. Mm-hmm. koy jàppee ci li nga xam ne mooy. moom mu ne pat di jël ay garabam rek. kese bu heure bu par six lay jënd day jënd des fois ñu tegal ko DHL poste genre yooyu noonu des fois mu bi dem yóbbu ko. donc traitement pare na waaw traitement am pare na mais moom moo ko bëggul bàyyi. d'accord parce que. donc est-ce que garab yi koo xamante ni ragal na cancer war na ko mën a jël. waaw garab bi man pour man même ko bu du cancer sax la muy fajaat ci nit dafa bëri. d'accord day raxas sa biir.

mieux vaut prévenir que guérir. Mhm. te yaakaar naa ni lutte contre le cancer bi nga xamante ni moom lañ koy wax moom la ñuy wax. Mhm. Mhm. fexe ba cancer bi du yegg si. loolu moom moo ëpp solo. que dem di def dépistage ak teel cee jóg ak nangam sànkam. bu mu la dal benn yoon. donc nañu woote ci 77 299. 36 12 77 299 36 12 wala nga def 77 602 09 09 mu ngi Liberté 6 euh, toujours Euh, tabarkalla macha allah boo wootee ci numéro yi jël rendez-vous bi rek. Mhm. fekk ko Liberté 6 dana la jàppale bu baax a baax a baax ci li nga xamante ni euh, moom mooy euh, xeetu jàngoro yi dalaate mais nday am beneen jàngoro boo xamante ni moom tabarkalla sunu mbokki góor ñi dañ ne woon nga yem ci loolu. Mhm. doyoon na sëkk jaamu yàlla. Mhm. li nga xamante ni yaa ngi koy def ci wàllu kattan. ak sa mutuelle sii. <laughs> mu doy waar mii. maanaam gëstu bi ba xam ne lii day faj cancer ak ngóor loolu la ba tey lu suñu borom sol la. bon si borom sol la ak lu ñu fi fekk aussi. donc mais man duma ma yem ci loolu man fu ma dégg ci dëkk bu nekk à travers le monde lu ma dégg rek fay dem. damay gëstu damay dem euh, ay Casamance Ziguinchor lu bari ah. damay dem tam ci sous région yi. ay Bénin Congo Côte Mali. waaw Bénin Mali Guinée voilà. Mm-hmm. Chine. damay dem Chine lu bëri damay dem ci dëkk yu bëri yoo xam ne ni pour rek di uti ay ay éléments premiers parce que man bëgg naa dëkk bu nekk loo am ma jël ko surtout maa ci wàllu ngóora wàllu faj damay bëgg ku nekk loo am rek ma xool su ma indee defar jox ni ñu essayer pendant six mois ut samay cobaye voilà après ma doog a commercialiser donc damaa ragal gàcc xajuma ci defet ut cobaye waaw ah, damay ut ay cobaye ay nit may leen garab bi ma koy may ay nit voilà d'accord li ngay mayee ëpp li ngay jaay <laughs> loolu moo ma jaaxal ci sa <laughs> Euh, garabu ngóore bi euh, garabu ngóore bi nekk na moom tamit pour tout avant euh, dafa nekk 100 pour cent naturel boo koy naan da ngay senti petit cola bi moo ciy gën a saf sàpp sax voilà ak yeneen yoo xam ne mun ñu ko filim ñamatos ah, waaw ñamatos yi waa léegi nag mu nekk garab boo xam ne kon ni ñu koy defee rek dafa nekk garab boo xam ne dalay dimbali ci éjaculation précoce voilà ji mhm. da nga ciy naan rek loo xam ne day toll ak kaasu attaaya na ko tey boo ko naanoon nii toog di seetaan télé sax da gis ne si saa si da ngay commencé ñàkk après moom mu agir même ko fekkee ne ko jigéen sax moom boo ko naanee 15 minutes da gis ni moom moom day yëkkati boppam. da ngay daal di commencé xumb. waaw big bi day commencé mel ni bëgg a. da ngay xumb rek <laughs> tarkal la. voilà loolu la jigéen ñi war de. mu nekk mu nekk garab boo xam ne li ci ne yëpp dafa am solo parce que yemuñu ci loolu. Mm. dañ lay yemal ci góor ñi nga xam ne ni dañuy comme li nga wax rek éjaculation précoce. faiblesse sexuelle. prostate. waaw lii boo koy naan doo am prostate. démarrage jafe waaw. Ah. <laughs> di bës di ñor mu <laughs> tamit lim lay gën a neex mooy. waaw mi ngi noonu te li <laughs> te lim lay gën a neex mooy da lay dimbale ci fatigue générale. boo koy naan sa yaram fenn du métti nekkul garab yi nga xam da nga koy naan mu lay sonal di la di la sonal boo ko naanee yow yaay yow du tere tamit yow yaay yilifaat sa bopp ba pare. parce que nekk na loo xam ni du la du la du la def yenn yi yu excessif yi yow fu heure boo bëggee oto la rek boo dugg heure fi nga bëgg a wàcc rek moom ngay wàcc. d'accord voilà mu doon jàngoro yu bëri yu muy faj. ay métitu biir métti jigéen yi nga xam ne sax euh, boo amee problème mu am doom tamit mën nga ko naan ah. règle douloureuse mën nga ko naan comme li mu koy wax yenn jàngoro yu bëri yoo xam ne daal moom da koy faj vraiment mais gars yi nga xamante ni ñoo ko jot a jënd ñoom wax nañ ne nday faatu Euh, lan moo tax mu ciy boole leneen ak leneen ak leneen lii dafa doy sa côté <laughs> résultat bi nga xamante ni euh, dafay am parce que ñu ñu ngi ciy bëgg yàgg man ak yow du tey jii la ñu mës a indi euh, garabu kàttan boo xamante ni da nga ko indi mu def ay miracle mhm. ñu ci bari nag wax nañ ne boo yëgoon yem ci bii mais dama bëgg a xam ndax benn butéel bi doy na traitement wala dangay jël nangami butéel lii du butéel benn benn taas benn kaasu ataaya moitié doy na traitement léegi nag yow yaa koy boo ko soxlaa parce que mënoo koo naan chaque jour soo ko naanee tey day dem ak yow effet 3 jours. day dem ak yow effet 3 jours donc da nga koy naan ni nga ko soxlaa parce que c'est naturel. lu naturel amul gaañ. mais bouteille bi bu jeexee moom mën nga arrêté. bu la neexee nga jëndat. d'accord bu neexee nga jëndat mais nekk na loo xam ne bouteille bii nii tey boo ci naanee deux na nga naan ci deux. Mm. ba trois bu fekkoon ci yow tële. waaw impuissance sexuelle. dindi na ko nee ma la da koy dindi. d'accord mais sauf nga judduwaale ko. d'accord te j'aimerais bien genre danga may woo nga wax ma nan la la dikkalee. d'accord bu ko defee man ma xam. dose bi nga war a dose bi nga war a jëm la jëlal temps de bouteille voilà. parce que tamit loolu ci résultat ci samay cobaye la. d'accord ma ci li ma nit ñi wax ak résultat yi ma am ci loolu rek laa mën a seede. ok parce que man tamit duma góor jigéen la. jigéen la voilà donc mais résultat yi ma testé si samay proche si yenn clients yi. yoo xam ne nañ ko. non des fois nit woo ma xëy. gars yi nañ ko yow da baax loo jox nii loo ma jox nii <laughs> ñu bëri am ñoo xam seen GP duñ dem te yóbbaale am na yoo xam dañ koy commercialiser voilà mais képp koo xam ne daal jox naa la ko woo nga ma laaj ma loo ma jox nii. waaw. looloo ci am solo am na garab yoo xam ñoom ñoo lay diriger di la def loolu loo mënul mu lay yàqal. mën nga dem ba soxna si mhm. euh, la fële. waaw yow nga dese si kedd kedd. mais mën sa bor. mais jigéen mooy ah moo mën sa bopp. mën sa bopp ah. mën sa bopp déedéet. waaye ndey. Mhm. damay delluwaat un peu. Mhm. ci miracle seet. Mhm. ndey seetu nga seet. man dafa am boo xamante ne nag gars yi dañ euh, surtout ki déplacé wu ñëw ba fekk si la. nga dee sa loxo bii di ko xooj di raxas rek di dindi yi nekk ci yaram <laughs> ba loxo bi tàng jër sama loxo bii nga ko teste woon du ma ko fàtte ba suñu jot yàlla tey. waa loolu loolu dafa am boo xam ne tey jii boo ñëwee. boo ñëwee toog pour mu mën la finde dañ laa liggéey. loolu en général ku ñu liggéey la. d'accord pour mu mën la finde dañ laa liggéey dama lay woo yow ak ki nga ànd ki nga ànd bu ma leeree ni kenn liggéeyu ko. Mm. damay jël benn affaire teg ko sa kaw. Mm. bu la lakkee dañ laa liggéey. Mm. nga teg ko ki nga ànd lakk ko kooku li kenn liggéeyu ko. d'accord c'est juste genre test boo xam ne dama koy def pour mu gën a gaaw. Mm-hmm. parce que liggéey Adja dafa métti. d'accord wax ji da ci xaw a bëri. voilà mais ñun ñun nit ñi rek lañ fi nekkal Adja. Mm-hmm. voilà mais népp rek nit mën a ñëwee ba ñu mën la teg ci yoon bu leer mën la dimbali incha allah rek dañ koy def. d'accord mm-hmm. Ndeye Fatou mu mel ne am na ñoo xamante ne da nga leen di ngemb ci bayre waaw ah, mais xam nga des fois xam nga des fois ala Adja ah. des fois bayre bi il faut des fois am li ko jiitu ma ni daf may wone ma bayre laa bëgg ma la noonu foofu laa jëmoon waaw mi ngi noonu waaw mi ngi noonu léegi nag boo nee bayre mënoo mm-hmm. ne bayre te yow cat bi ne ci yow dañu d'accord mënoo ne bayre te li liñ la yàqal ba doo jaay mm-hmm. liñ la yàqal ba doo am dara mm-hmm. loolu dindi woo ko pare de foo nga dindi loolu nga gàllaaju wala foo nga dindi loolu nga doog a mën a ubbeeku ku tëju kay mënoo jékki-jékki rek di ubbeeku nga dindi li la tëj li waral nga tëju. bool bu tilim daal kenn du ca def. da boobu tilim kenn du def foog nga raxas ko ba pare nag doog cee mën a def. d'accord. Mhm. ndey mu mel ni que yemoo ci lii rek de. Mhm. non non. am na damp troisième pied. da ngay naan kattan gi ba pare mais da dàmp troisième pied bi. voilà même que bii nii boo koy naan sax dina toll foo xam ne nii dina la xaw a yokkaale awra bi c'est 100% naturel. da koy ñoddi da koy da koy ñoddi parce que dafay di laati li nga xam ne mooy siddi di naturellement. voilà mais comme li nga wax rek garab yi garab yi képp koo xam da ngay day crise mm. sa doom yóbbu nga ko fu ne man nag bul njëkkee ci man. Mm. parce que damay jàpp ne boo njëkkee ci man doo xam sama valeur. mais ñëwal ci man. ci kuy crise waaw kuy crise da xam ne day crise du mën a jàng surtout am ñoo xam ne bu ñu duggee école lañuy bañ. indi ko dañuy dugg rek daal indi ko. Mhm. benn yoon dootul crise ci àdduna. d'accord waaw ak yeneen ak ay cuuraay yoo xam ne voilà mhm. boo ko suuroo eh, ngelaw seytaane yi dafa bëri. ci loolu laa bëggoon na ñëw mm, ndax bokk na ci liñ la sol ci wàllu faj rab. waaw waaw rab moom ñemewu ma ko trop. ñemew moo ko parce que bu ñu yoree njaboot bu ndaw dañoo yor ay doom voilà dama ko éviter mais nag euh, bu dee nit ki xool naa sa mbir xam naa ne say mbir yombul mais suuru yooyu bagage yooyu day hmm. dàq lépp day dàq lépp laay ñëw rab bi rab bi bu fekkee yow da ñëw ci man waaw ma xool say mbir xam ni su ma ci dimbaliwul du baax hmm. ma dinaa dinaa am sacrifice yu ma def hmm. mais boobaa dafa am yeneen condition yoo xam ne da koy laajaale yoo xam ne boo ko nangoo def ma nangu laa defal d'accord waaw mais rab moom su ma ko mënee éviter wala loo xam ne nii foo dem mën ne la ko faja du ma sonn mm. mais ki nga xam ne dafa sonn xam nga des fois am ay clients yoo xam ne mm. dañoo sonn léegi en tant que xolu yaay jigéen laa yaay laa damay bëgg nit ki si saa si ma ma ma dimbali la mm. parce que boo toogee ne man liggéey bi yenn xaalis yi nga xam ne war naa ko à garab yi may jaay waruma ko lekk kon pour dimbali moo tax kon ki la woo am yenn jàngoro yu métti mu yàgg ci moom mu sonal ko tere ko am jëkkër wala tere ko nekk ak jabaram tere ko nekk ak nit ñi parce que am na rab yoo xam ne lay yàqal sa nekkit ak nit ñi wala tere la am doom voilà mm-hmm. wala nga tere am jàmm koo nekkal tey bu mu xas la mbaa mu xuloo ak yow te lan la defoo ko dara mm-hmm. mu doon loo ne damay bëgg rayante pour dimbali la mm-hmm. voilà mais nag am na yenn cuuraay yoo xam ne buñ la buñ la dimbalee ci rab bi wala bu fekkee seytaane moo la jàpp boo ci suuroo benn yoon desit bàyyi ko ci biir kër gi kër googu jàmm rek lay am même que am na yenn gàllaaj yoo xam ne la ko joxee sa kër ku fa indi liggéey du fa dem balaa ngaa dugg ci kër gi wala di fa def dara toj na d'accord dafa am ay yenn yoo xam bul xaar ba mu metti Adja képp ku mën a daw uti kaaraange mm-hmm. ut ko yow si sa bopp ak si sa njaboot surtout aar sa kër sax déjà moo jiitu aar sa kër ku fa indi lu bon du fa dugg ñaata nit ñooy dugg sa biir kër suñ fa dara ñaata nit ñooy dugg sa kër pour yàqal la wallaahi te day nekk koo xam ne tey ku la waxoon kii la nga ne du dëgg wallaahi dëgg la kon te jii bul xaar ba mu métti pan li ma naan benn cinquante mille bu nga waroon dépense wala benn dix mille wala benn vingt mille di mm. nga toll foo xam ne million mënu ci yow dara dëgg la te dina metti di nga sonn te di nga sonal sa bopp sonal sa njaboot man pour man lu mënti nekk utal kaaraange bul xaar ba mu metti mm-hmm. fi muy neexee dëgg jàppane à tout moment lu neex lu metti mën na cee tegu léegi yow ñi nga xam ne tey jii dafa nekk Sénégal surtout sax laay wax Sénégal dafa nekk réew moo xam ne boo bëree ñu bëre boo bëriwul ñu bëre léegi donc da ngay moytu nga def kaaraange defoo kenn lu bon loolu yàlla nangu na ko. aaral sa bopp. aaral sa bopp voilà. Mm-hmm. réew yow nga nekk sa jàmm yéene ñëpp jàmm yàlla da lay dimbali. surtout voilà. bu ko toppee nii rek fii la ñuy mi fii euh, ci liberté si si deux voies yi euh, boo ko woowee téléphone rek incha allahu taala di jëflante yow gars yi na ne nga ubbi téléphone bi nag <laughs> yaa ngi gën a ah liggéey bopp nag Adja <laughs> waaw man wax naa. bu ma dóor bu ma dóor. raam naa yegg naa ne mag sama copine bii toog <laughs> nga xamante ni moom man ak moom ñooy coaliser émission bi fexe ba ñoddi la ba nga ñëw ñëw nga ba pare nag sarax ñu rek benn 15 jours wala benn un mois boo xam ne da ngay. ubbi téléphone bi. bien sûr gars yi mën a ñëw jël si garabu cancer bi. Mhm. parce que cancer bi bari na ci réew mi. Mhm. waaye itam ñëw jël si garabu kattan bi. ak lu dégg naa da nga yor secret boo xamante ni ci jaat lañ koy liggéeyee jaat yi ñuy teg neew. <laughs> déedéet Adja <laughs> waaye li ngay def da nga tamit de avant caméra yi tàq lañ ci waxtaan. <laughs> bu ngeen ko woowee ci suuf ngeen laaj ko ko dégg da bëgg a të yow të xam nga néew mënul boppam dara noob la kaaraange la. ma wax ci noob gi looy noobee lu dul loolu. <laughs> non non dañuy dañuy jubóo noobu ñu dañuy jubóole rek <laughs> voilà ñi nga xam ne seen sëy yi neexul voilà bon parce que tamit dañoo jaar ci mbir dañuy bëgg rek euh, fi ñuy jaar ñu bëri bañ fa jaar. Mm-hmm. voilà donc dañuy bëgg sëy ñu joto ànd daal dañuy fexe ànd yi neex. parce que ñuy rek di ñuy ree man bëgguma divorce Adja. malgré tout bëgg ma divorce léegi daal donc waaw mi ngi noonu mm. léegi nag yow boo ci nekkee mm. yàlla boole na la ak moom nga am njaboot wala amoo njaboot mm. pour man toog ci rek nga góorgóorlu parce que lu métti yàggul Adja ki la war a yor it la yor waaw voilà xam nga sëy moom bu neexee ci ku jigéen ki bu yàggee ci ku góor ki la mm-hmm. donc nag kon lu bari rek na góor ñi muñal jigéen ñi mm-hmm. jigéen ñi tam nanguñu yilif leen pour kër gi mën a neex loolu rek la mais doo wax ci bantu jaat gi non non non Adja loolu pour dugg ci loolu <laughs> xam nga néew mënalul boppam dara tàggool ndey waa Adja li may wax mais tàggoo boo xam ne dem dellu waat la de parce que garabu cancer bii dafa am ku ma koy jox incha allah te dinaa ko topp a pas de souci amul benn problème ñu ragal ragaluñu la man ragaluma la man yow laay topp <laughs> euh, mi rek comme li ñuy wax rek nee naa rek képp koo xam ne daal xam nga ne sa jafe-jafe xaw na laa tututi mm-hmm. euh, boo ñu woowee rek dinañ ci taxaw ah boo ñu woowee daal boo ñu jotul insister di ñu jot parce que tamit. ci ñaari numéro yi waaw ci ñaari dafa nekk loo xam ne tamit ñëppay woo ñëpp ñooy woote voilà. Mm. donc nag nañuy woote sinon après nga bàyyi message whatsapp léegi bu ñu libéré rek dañu ko déglu tamit dañ la tontu mais boo ñu jotul bàyyi ñu message whatsapp daal loolu laa ko mën a waxee. parce que ñun yéen rek lañ fi nekkal. suñu sañoon bëgguñu kenn mer waaw mais seet moom nekk na Adja li ma gën a tayal <laughs> seet moom ci tàggoo bi ma di ko ci bërëxal xoolal seet moom dama la xam ku ma woo ma la ma sama sama sama sama assistante la xaw ma suñu copine bii day wax day xëy di ma xas ba ko xoolal ñi lay woo sa téléphone pour pas doo jël c'est man ko c'est seet mooy objectif bi objectif bi mooy ki am jàngoro ñu dimbali man loolu mooy objectif bi nga xam ne laa bëgg daf la daf la sonal ki feebar daf la daf la sonal waaw ki feebar man mm. woo ma nga feebar ma faj la moo ma gën a nga may waxu seet mm, voilà mm. mais tamit des fois nit ki tant que seetoo mënoo xam réellement li ko dal wax même que man boo ma waxee sa jàngoro dama koy nekk moom mm-hmm. ma jaar man fi ma bëgg jaar yàlla may ma nam nam bu gaaw parce que des fois da ngay dem ci sama sama classe yi yenn suñu borom mm-hmm. dañ yenn feebar yoo xam ne Adja loolu fa ngay doxee feebar sax fa ngay doxee feebar teg ci teg ci ay teg te jaxaseel ak waa koñ ba waa kër ga te fekk yow du demal ki woo nga woo ko ne ko dabaax nee na waxoo dëgg Anike la ko wax nee ko da baax nee na waxoo dëgg lii daluma lii moo ma dal man te lii boo ko fajee mooy am jàmm. d'accord loolu nekk na loo xam tamit ci wàllu xool bi di wax nit loolu yàlla moom moo ko may. Mm-hmm. voilà léegi nag képp koo xam ne rek euh, am na lu la jaaxal boo ñu woowee incha allah rabi dina la ci taxaw kon ni ñuy taxawoo suñu bopp comme ni ñuy li nga xam ne moom rek moom mooy suñu njaboot ah voilà boo ñu woowul bàyyi ñu message dina la tontu Adja mi ngi noonu. am na solo ñu lay jaajëfal Adja maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal libaas suñu camarade sëriñ bi duunati na tabaarkàlla macha allah damay bañ cat dugg ma <laughs> ndax su ma ko génnee cat dalay dugg cat dalay dugg sama sama sama sama sama rakk non cat dalay dugg waaw mais sañ naa def ni sama mbuus rek ah cat dalay faatu day daal di ñëw léegi na ma sama wàll. non yow mag nga. moo tax ma wàcc ko yow mosoo jàkkaarloog man tabaarkàlla macha allah te teraloo ma ndax dangaa regg démb tey soog a ñëw kon lii damay gëm ne lii da nga ko def pour pa euh, li la yàlla may waaye tam dimbali nit ñi ma yombalal leen ko képp koo xamante ni woo nga ko te jotoo ko ci garabu cancer bi ak garabu kattan gi woo ma parce que xam naa garab gi li muy def man dinaa ko démarché ba nga jot ci ndax jot ko yombul. <laughs> Ah, xanaa maa moom suñu mag nga sama mag nga. voilà voilà ci assistante waaw boo ma gisul da may woo. Mm-hmm. boo ma gëjee dégg ndey faat foo ne ñëwal ñëwal ñëwal. ñëwal parce que yi dañ koo ñëwal kër ñu waxtaan. ñëwal sama kër ñu waxtaan. voilà li nga yor gars yi dañ koo yorul te rëy la meñ lool. <laughs> Ah, mi ngi noonu mais nañu nañu dimbal Adja jaam yi. surtout maa waa Europe yi. Adja Europe métti na actuellement Europe sedd na man ñi ngi fay dem xam nañ ku nekk la ñuy dund voilà nañ leen dimbali rek te yàlla tax te ñu xam ni euh, ñetti fanu bàmmeel dara xaju ci ajaa nañu dimbalante ku nekk rek nga jàppee ko kon sa bopp parce que tout le yónnee naa nit nu yónnee naa nit ba mu ko yónnee sama xarit laa koy dégg Adja loolu dafa ñaaw te dafa waaw dafa ñaaw nit ki pour man xam-xam bi ngay wax bu la ko yàlla mayee mm-hmm. nan ngay bañee jël nit ki nit ki jëlal xaalisam nga nga nga dimbali ko mm-hmm. tax nañu ñoom dañuy yàq seen bopp yàqalaale ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci métier bi mm-hmm. te loo gis rek du ñëpp mais ku la woo rek jàppee ko kon koo bokkoon ndeeg baay wala nit sax na la gënal sa bopp nga taxaw ci ay mbiram lu la yàlla may rek nga jël Adja dee leen génn nag bokk na ci li ñuy dimbali di ñëw ci plateau yi parce que plateau yi bu ngeen ko bàyyee saay-saay si naxe bi bari <laughs> te bu ngeen baree ci plateau yi yow ak ñoo xamante ni tey maa ngi ànd ak ñoom ay émission mm-hmm. bu yàggee dinañ xam fan la dëgg feete dee leen ñu sarax ci loolu te nga bàyyi lalu bi ak laqatu bi <laughs> del génn li la yàlla may wax naa la gaa yaa ngi yuuxu rek te li la yàlla may mayu leen ko ñoom voilà diñ góorgóorlu bu baax Adja incha allah mbokk yi yaakaar naa ni liñ leen indil tey jii euh, kontaan ngeen ci xëy na dañu yem ci jàngoro jàngoroy asthme jàngoroy cancer ak li nga xamante ni moom mooy kattan waaye ak euh, lii di crise yi xale yi crise hmm. waaye damay wax ne yow mi nga xamante ni yow yaa am asthme yow mi nga xamante ni yow yaa am ballonnement wala nga am rétention d'eau wala nga am biir buy metti boo xamante ni daf la jaaxal wala nga am ñi munta am doom surtout ku góor ak ku jigéen jokkool ak moom ci numéro yooyu nga xamante ni moo nekk ci suufu écran bi bëgg nga bayre bëgg nga kaaraange bëgg nga li nga xamante ni moom mooy ubbeeku yooyu yëpp dafa fi nekk yàlla sunu borom moo ko ko cërale ci xam-xam bi nga xamante ni mooy xam-xamu sunguf reen xob bu ñuul ak ñi nekk ci wetam ak ña nekk ci ginnaawam te di ko dooleel tabarkàlla macha allah mu koy teg ci temps ak heure dama wax ne Ndeye Fatou Diatta Bâ du ay caaxaan moo tax mu jógee ci télévision boole ci li nga xamante ni moom lay yëngu woow leen ko ci numéro yooyu rek incha allah di ngeen am satisfaction. barkàlla macha allah doon na ko xamante ni xam-xamam kenn dootu ko laam-laamee ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant encore di leen souhaiter euh, bon et heureuse année di leen jox rendez-vous incha allah très prochainement ak beneen gan merci.